ak yeneen anniversaire yi démb anniversaire suñu benn xarit la Cuppuru alors Cuppuru euh, ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire mu ngi dëkk euh, Paris très adorable euh, ñun ñëpp ñu ngi koy ñaanal donc Alfi anniversaire u Cuppuru defe naa sa anniversaire la aussi ak Mado ah ak yow mii waaj a dem Paris voilà <laughs> ma nga ma fekkoon mu nekk ku baax ku fonk ay nitam ku bëgg ay doomam donc de la part de euh, Mathéo ak ki nga xamante ni mooy Lucas maman Mado depuis Gorée ñëpp a lay ñaanal euh, nga dund ba énervé comme ni ko gars yi di waxee. voilà donc ak euh, tabu tabu onglerie. tabu ah, <laughs> xaritam tabu elle a insisté oui. ah c'est bien ça c'est bien ça. elle doom maman la woon voilà c'est ça donc joyeux anniversaire à Tchoupourou euh, joyeux anniversaire par anticipation à Adja Gueye alors euh, Adja tamit euh, euh, sama rakk la ñu ngi koy ñaanal Adja Chéri Ndeye Souley Adja rakk ci Momar ak Anta Gueye donc Adja joyeux anniversaire par anticipation de la part de tes grands frères à toute la famille Gueye nekk Parcelles Assainies Badianou Fallou joyeux anniversaire par anticipation joyeux anniversaire à maman chérie ma maman chérie sama yaay euh, yaay booy je te souhaite d'être heureuse toute ta vie yaayu Serigne Saliou ak Pape Doudou euh, je t'aime fort de la part de Koumba euh, bu service commercial bu télévision Futur Média donc bon anniversaire à toi maman joyeux anniversaire à Kadjali madame Touré longue vie à toi c'est de la part de Oumou Kalsom Li euh, madame Diouf qui te souhaite beaucoup de bonheur joyeux anniversaire à à la sister euh, de euh, Pape Cheikh euh, Tchoupourou c'est de la part de Tabou Alfie Mado et ses enfants Lucas ak Mathéo sa maman Mado depuis Gorée joyeux anniversaire à madame Samb euh, Mam jeng Dieng Mam Piti c'est de la part de Larry Bonbon alors Mam Piti euh, ñu ngi lay souhaiter un bon anniversaire xam naa ne anniversaire bi euh, sàkkal euh, nga koy célébrer tey gâteau beeg ngato bi plutôt ngato bi sàkkal lañu koy yóbbu ak Larry Samb donc bon anniversaire à Mam Piti euh, madame Samb Joyeux anniversaire à Aïcha Diop, c'est de la part aussi de Larry Samb euh, qui te souhaite beaucoup de bonheur. Joyeux anniversaire à la très belle dame Mame Diarra Ba, euh, une petite sœur très humble et généreuse, c'est de la part de tes petits chéris euh, Babacar, Souleymane, ak euh, papa Cissé. Joyeux anniversaire aux sœurs Kenemé, Absatou ak Awa. Euh, toutes les familles euh, Thiam Kenemé Diouf euh, vous souhaitent la totale votre maman Ngoné Thiam et papa Ibou on vous adore joyeux anniversaire à Awa Mbaye c'est de la part de Pape Doudou Thiam donc Pape Doudou moo fa souhaiter un bon anniversaire à Awa Mbaye joyeux anniversaire à, à mes adorables frères euh, Sari Mbodj euh, Badou Mbodj et ma magnifique sister femme Mbodj c'est de la part de toute la famille Mbodj et puis joyeux anniversaire à Maguette Dieye c'est de la part de euh, Jàmm Ji Family euh, donc waa Jàmm Ji Family ñooy souhaiter un bon anniversaire à Maguette Dieye joyeux anniversaire à Fatou Nia euh, Fatou Nia bu Kouthia Show ah bu ñanga <coughs> ah ñanga waaye euh, ñanga bu Kouthia Show waaw ñanga ndeysaan ah ku ku rakkaaju tey la anniversaire am mais sama xarit sama jigéen donc ñanga euh, moom ci équipe bu Kouthia Show la bokk sama jigéen la man waaw sama sama sama xarit la sama xol la mu ngi ànd ak équipe yi nga xamante ni ñoo leen di bégal ci télévision Futur Média ngoon gi 18h donc ña nga euh, ñu ngi lay ñaanal euh, di ko souhaiter un bon anniversaire de la part de waa Kouthia Show yëpp ak man mi euh, ña nga dundal. joyeux anniversaire à Momo euh, Dieng alors Momo Dieng c'est de la part de maman euh, Amio et de ton papa Bayla Dieng depuis Saint-Louis euh, defe naa sët la de waaw moom suñu sët la de. Euh, surtout maam Ngalla la su ma juumul euh, donc Momo Dieng ñu ngi koy souhaiter un bon anniversaire kon ñu ñëw bàyyi leen ak oustaz euh, Pape Anne en attendant Dieynaba Seydou Ba ñu ngi lay tàggu waaw jërëjëf Pape c'était un plaisir di gërëm bu baax Fat Si mi defar musóor yi donc mun ngeen ko am au 77 612 45 02 Fat Si borom musóor yu yu baax yi damay tëjee nag jaale sama benn maam boo xamante ni démb daf fi wàññeeku moom sama nijaay la ci sama yaay yaay muy euh, donc maam euh, Moussa jaw euh, di ko kon jaale bépp famille jaw ba Sow ñi nga xamante ñoom la Ramata Jigo daal di meññ ñu ngi leen koy jaale bu baax a baax Pape.